ndaje bi li ko waral maanaam dama ñëwoon indil euh, école euh, maanaam euh, école privée gànjool gànjool bi ay uniforme ndax école bi day suñu école suñuy doom rek ñoo fiy jànge te tamit ñëpp ñoo si war def seen loxo ñuy lancer appel képp kuy doomu gànjool gànjool mu ñëw jàppale école bi parce que mi ngi def résultat yu baax te am na ñuy génne ci lycée bi te amuñu fu ñu nekk te muy privé boo xamante ni dafa ñëw si jamonoom ñu war ci dugal suñu loxo jàppale leen indiloon naa leen année passée ay blouse tey uniforme laa leen indil may lancer appel képp kuy doomu gànjool gànjool nga ñëw jàppale école bi ñu am site am place parce que at mu nekk dañuy gën a dañuy gën yokku daal te ñoo ngi defit ay résultats yu baax waaw te ñun si wàllu éducation wàllu santé maanaam secteur yëpp la ñuy dugal suñu loxo rawatina éducation ndax dañuy bëgg suñuy doom jàng nekk ay cadre ëllëg am ay responsabilités yu baax ci gouvernement bi ak leneen pour ñu mën a satisfaire seen besoin localité pour ñu mën a liggéey ci localité bi waaw. parents yi ñu jàpp ci xale yi ñu jàng ndax jamono ngi ñëw ci kanam jàng day am njariñ boo jàngul dana bare loo xam ne doo ko mën ndax jàng ak expérience bokkul mën nga jàng am expérience mooy gën a baax mais boo jàngulee soo amul expérience sa dara du sore. te loolu dafa bare te jamono ngi ñëw ku jàngul rek mën nga daal di am retard bu baree bare si sa biir moroom yi nga nekk wala si yeneen secteur yi nga nekk. ndongo yéen ma leen di wax nañu góor góorlu te xam ne lu waay def lu waay jàng rek sa bopp nga ko jàngal ndax bis boo jàngee ba réussir doo doo doo xalaat dara te daa bare soxla yooyu faj te doomu gànjool gànjool dafa am jom am jomba naak bu jàngee ba am yu fi boppam day am fierté Sili lépp lu mu war def soo jàngul nag donte da ngay réccu rek loolu la ñuy bañ mu dal leen may wax parents yi nag nañu bàyyi seen doom yu jàng surtout jigéen ñi parce que jigéen bu jàngee dem këram yow parent bi dootoo sonn si moom au moins moom moo lay jàppale jàppale njabootam jàppale borom këram njàngum jigéen dafa am solo moo tax ma bëgg xale yi jàng tër yi li may lancé si ñoom message ak ak ak ndaw ñi mooy nañu tànn candidat yi bare na mais nañu tànn ki baax si askan bi ki baax si dëkk bi ñu nekk ku wóor parce que candidat yi bare nañ torop ndaw yi ñooy tànn nanu xàmmee bu ñu tànn ngir seen bopp bu ñu tànn ngir xarit bu ñu tànn ngir mbokk nu tànn ki nga xam ne moom moom moo wóor juddook ñoom yarondoog moom mën a liggéey te bëggul suuf bëggul oto bëggul xaalis nga xam ne xel la defar gànjoor rek moo ko ñor ndax lu mu doon am na ko ba pare te mënoon na bañ dégg dugg ci secteur politique ñu tànn ñu mel noonu moom lay lancé appel ñi nga xam ne ñooy tànn maire ku jub la war a doon d'abord ku am yar ku am connaissance si si si gànjool ku ràññee ku laabiir ku yaatu koo xamante ni am mën na déglu askanam am na yërmande si askanam parce que kat candidat yi bare woon nañu waaye danu tëye ñaari candidat coalition booloo soqali gànjool liggéey gànjool ak coalition yeewi askan bi te dañu waroon bàyyi population bi tànnal seen bopp ki leen di jiite mais suñu kalee deux pour pour pour pour pour faciliter yeneen candidats yi pour ñu jàll dañuy obligé ñoom ñëpp wëlbatiku dem si benn kandidaa pour woteel ko pour mu gagné ndax askan wi ñooy tànnal seen bopp am nañ fulla ju day na suñu leen bàyyiwul ñu dem élection wit daan tànn ki ñu bëgg a tànn te ki ñu ki ki gën si gànjool la ñuy tànn te su boobaa nag mooy mooy gën a métteeti si ñoom kon waroon nañu bàyyi candidat yu jàll. ñoo xam ne bu ñu leen tànnee autonomisation de la femme. maa ngi ci ay at di ko dox te mënul sotti am naa yaakaar ne am nañ fii candidat boo xam bun ko tànnee bañ na ko ba candidat jigéen ñi lañ ko tuddee suñ ko tànnee autonomisation de la femme day am day créer emploi si ndax mi ngi mi ngi yor ay ay emploi entreprise am la yor yor ay emploi di leen fay ay salaire depuis ay at man ko gérer presque am na lu mat cent emploi yu mu jël di di di leen fay ku mel noonu buñ ko dénkee gànjool création emploi day am

dua ko xool mbokk da ngay xol ki gën waaw man man fi ma bokk mooy pare naa pour soutenir candidat Papa Ndiaga Fall Papa Ndiaga Fall opérateur économie la te macha amna yar koku ñepp kay sédé ganjol yépp xamna ni bëggul suuf bëggul auto bëggul xaaliss parce que chiffre d'affaires am rek ëpp na 6 milliards par mois emploi wa machallah té ku am yar la ku xamé la te bëggul dara lu defar ganjol doxalinu mairie bi moo ko metti ak ay équipe municipale bu baax mu la bëgg am moo tax mu dugg ci politique mais doyawul dara politique ay coono la ciy def mais daf ci bëgg a jaamu yàlla man bëgg naa nit ñi déglu ko bu ñu ko dégloo ba dégg li mu wax dana convaincre ñu bare parce que moom dëgg rek ka ñor maa ngi lancé appel ci loolu si waa Gandiol